Rewmi 24 TV. dal leen ak jàmm mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo siyaar leen encore euh, doy na waar lool ci journaliste yi lay continuer ba léegi ginnaaw ba nga xamee ne ñu ngi leen di jàpp ak di leen euh, néewal doole. ginnaaw ba ñu nemmee ko kii di Coré euh, Mandela Pape Alé ak Pape Ndiaye mi nga xam ne mi ngi ci kaso bi ba léegi ak ñeneen ñoo xam ne daal daal dinañu teg loxo am na leneen lu ci yees leneen lu ci yees mooy kan. ki ñuy woowee Serigne Saliou Guèye Serigne Saliou Guèye mi nag ñu bari xam nañ ko ci Sénégal moom ak journaliste chroniqueur la nekk foofee ca Sen TV di def ab liggéey bu am solo ñu koy gis ci plateau yi muy def ay révélation yu doy waar yoo xam ne mi ko jëmale ci kii di njiitum réew mi ak kii di président Ousmane Sonko li ci doy waar nag mooy Serigne Saliou Guèye moomu ah, daal dinay jot ab appel dañ ko woo téléphone ñi ko woo téléphone nag ñenn ñu dul waa police centrale waa police centrale boobu ba ñu jotee ki nga xam ne mooy Serigne Saliou géey moom ñu ngi koy xamal ab convocation boo xam ne daal Serigne Saliou géey moom war na ko wuyu ginnaaw ñu ko defee euh, Moustapha mi nekk ci Walfadjri defaat ko euh, ñeneen ak ñeneen kon tey jii euh, Serigne Saliou Gueye Serigne Saliou Gueye moom moom la ñu convoqué ci police centrale ginnaaw ba ñu ko woowee téléphone. kon fii la Sénégal toolu jamono yi ginnaaw ba nga xamee ne jàpp nañu bari ci waa Pastef léegi ñu ci topp mooy. journaliste yi nga xam ne seen eh, liggéey la ñuy def rek ku ci def daal eh, publication bu ndaw wala nga wax loo xam ne daal neexul la ne ñoom eh, dina ñu la convoqué te xam nañ fa ngay mujjee kon loolu la ñu nemmee ko Serigne Saliou Gueye Sen TV mii nag ñu koy gis ndumbe daal ak ci plateau yu bari muy def ay révélation daal dinañ koy woo convoqué ko ci police centrale de Dakar moom la ñu nemmee kon fii la Sénégal tolloo fii ñuy wax ak yéen i daal képp kuy journaliste moom ba xamal ne saa su ne mën nañ laa jàpp fii la Sénégal toll jaa ngeen jëf mbokk yi